Euh, ci kii bi euh, allo euh, allo docteur Thioune. ça maa ngi lay nuyu. alors yaa ngi en direct sur Feeling Dakar TV Ahmed ndoy comme ni ñu ko gisee sànq di nañ koy placer sous mandat de dépôt alors en tant que juriste ban jàngat nga am ci décision bi nga xam ne juge bi def na ko jëmale ko ci Ahmed Ndoye. waaw xam nga merci di mbokk Feeling Dakar di leen bu baax. di mhm. rafetlu seen liggéey bu am solo bi ngeen def. waay euh, ci question bi ak euh, nouvelle bi. Mhm. donc euh, c' est une suite en tout cas judiciaire bu logique. Mhm. bu mu nekk nga xamante ni mu bëri ci surprise parce que fee yi gis nañ ngeen. mais dafa am lu ñu koy ne moom lañ koy toppee. muy défaut de permis dawal oto te yoruloo. permis mhm. ak euh, li ñuy tuddee euh, faux usage de faux maanaam mhm. euh, jëfandiku këyit boo xamante ni wérul mhm. ba pare yore ko ba pare di ko jëfandiku ko donc mu nekk délit yoo xamante ni boo demee ci bu njëkk bi mooy conduire sans permis ñu def tuddee ko défaut de permis le code de la route moom moo ko Euh, réprimé mm -hmm. article premier bi wax ne ko mën a doon boo dawalee te yoroo permis Euh, mën nañ la tëj lu toll ci euh, six mois ba euh, un an benn atu kaso mhm. ñu mën la fay ko lu toll ci vingt mille ba cinq cent mille mhm. alors bu dee ci faux et usage de faux mhm. loolu c'est le code de du code pénal sénégalais moom moo ko moo ko tere donc article trois cent soixante dix neuf du code pénal mais bu fekkente ni da ngaa jël këyit boo xamante ni da nga ko utal Euh, da nga koo am nga jëfandi nga nga jàppee ne lu baax la te lu bon la. Mhm. ba pare yemuloo ci lu bon rek nga téye ko waaye nga jël ko bu ko defee comme kayit bu baax ñu tuddee ko usage de faux. Mhm. Euh, bu fekkente ni ki lay àtte dafa gis ne loolu ci coupable des faits. Mhm. Euh, loolu mën na la ci topp te buñ la ci toppee daan bi mun na nekk diggante atu kaso lu gën a néew. ak lu ñu tuddee amende boo xamante ni mu ngi commencé cent mille ba million de francs CFA. Mhm. alors alors docteur Thioune gis nañ Ahmed Ndoye homme public la animateur la daan génn di euh, citer les manquement euh, de l'État du Sénégal est-ce que tey jii koo xam ni dëppawul woon ak yoon bu dikkaatee est-ce que dina amaat aura bi nga xam ne amoon na ko ak ci lim doon ŋàññee bi. Euh, nga nit da am lu ñu tuddee Euh, modestie. Mhm. modestie c'est quoi parce que moom benn li tax moo ne modestie mooy da moom dafa accident dafa def accident le vingt et un euh, octobre deux mille vingt quatre. Mhm. alors vingt et un octobre lundi la donc lundi accident bi ñi nga xamante ñoom ñooy takk der ñu def pour def constat. Mhm. bu ñu ñëwee pour def constat ñu gis ne waa ji euh, mu ngi. dawal oto mais jamono jooju yorul permis alors ñu ne ko am sa permis ñu laaj ko mu ne mu jox leen attestation mooy attestation boobu moo waral faux bi nag moo waral usage de faux. oui ñu ne ko dama la indi sa permis mu dem parce que sëñ bi lu lu yomb mooy il ñu wax sénégalais yi te ñu bañ a ne di wiiri wiiri ñu bañ a ñu bàyyi leen ci manipulation bi. Mhm. mooy sëriñ bi ndooy yorul permis bu yoroon permis bu ñu ko waxee lundi te dama la indi sa permis du toog altine mardi mercredi ba jeudi ñu jàpp ko. ñu mhm. jàpp ko xew boo xamante ni. xew boobu noonu suñ ko wax euh, suñ ko convoqué maanaam amul convocation buñ ko envoyé mm-hmm. ñoom bu mu bu mu jógee ak takk day dañ ko ne demal indi sa permis nga indi léegi bu mu demee ñëwaatul ci la ñëw maintenant ci benn xew euh, dem ci conférence bi pour def li ñu tuddee mu def prise de parole mm-hmm. léegi nag moom la modestie ak ñi mu àndal mooy ñoo war a wax sénégalais dégg comme quoi waa ji day yorul permis léegi nag moom attestation boobu mu yor aussi. Mhm. nekk ci turam. parce que man fu fekkente ne sama tur la nekk mënuñ ma condamner pour loolu. Mhm. mais bu fekkente ni numéro bu nekk ci attestation bi ak turu turu bi nga xamante ne moom mooy ku ñu jàpp jàpp ne moo def accident. Mhm. ñu laaj numéro la mu laaj ñu laaj ko permis mais soo ko bu ñu ko comparé loolu dafay wut wute dafay woro léegi nag bu wutee waroo loolu mooy créer faux ak usage de faux léegi nag loolu buñ la ci toppee exactement mënoo wax mbirum politique. li nga boo ci génnee bu la ci yàlla génnee ak jàmm ak salaam li nga war a wax Sénégalais yi rek mooy nga reconnaître ne da ngaa def erreur. Mhm. léegi nag erreur bi nga def mooy ba pare nga dem jàngi wala nga dem uti fer. waay surtout donc loolu je pense que euh, Sénégalais bi aussi des fois dafay gët ñu wax leen dëgg mooy nit ku amul permis mhm. xam nga ne amuloo ko am xam nga yoon bu ngay def ba am am ko. waay donc nag euh, je pense que Ahmed aussi ku mel ni moom. Mhm. nga am yenn position yi war nga mën a mën a. def yenn yoo xamante ni vraiment. ci lu gën a euh, élémentaire ay permis ngay dawal te yoroo permis donc loolu kay war nga méngóog lu yoon wax. alors sortie bi nga xam ni Cheikh Yérim Seck defoon na ko aussi génn benn papier que ni dañ ko daal di rek sonal euh, ba mu moom mu entamé woon entamé woon euh, benn xeex bëgg a dem ci justice moom itam sorteem boobu. waaw Cheikh xam nga Cheikh Yérim moom euh, c'est quelqu'un qui dafa maanaam moom dafa nekkoon dans une logique de soutien. Mhm. à Ahmed Ndoye. oui mais lu muy wax léegi ça n'engage que oui parce que moom moo wax par exemple ay dañoo désactiver permis et cetera mu accuser euh, nga nañ ci déggee ne dafay accuser de manière indirecte li nga xamante ñoom ñooy la police parce que moom dafa jàpp ne police boobu moo bind. Mhm. lu ñu tuddee l' attestation. à mettre remettre. léegi nag dans l' attestation am na attestation bi am na. mais lu ñu war a leeral ci attestation boobu ba ak ba kooku di wax dañ ko désactiver wala dañu ko désactiver wul mooy attestation bi numéro bu ci nekk. du numéro waa ji ñu tudd Ameth Ndoye. léegi nag loolu mooy problème bi maanaam bu ñu ko vérifié takk der yi mooy bu leen Ameth joxee attestation bi. Mhm. ñoom danoo woo waa danoo envoyé document yi waa service des mines. waay service des mines ils ont fait ce qu'on appelle une vérification ci la ñu gis ne numéro boobu nekk ci attestation bi te Ameth joxe ko méngoowul ak turam mais benn nit la sénégalais la donc sénégalais boobu moo porte plainte d'ailleurs contre Ameth léegi nag contre amendo et contre x mooy loolu mën na nekk usurpation d'identité mhm. parce que man par exemple su ma toogee sama kër dara xew fële ci document yooyu sama ñu gis ne sama pièce d'identité da ci retrouvé wu mais man war naa mën a porter plainte pour ma xam comment mon nom nan la ci nan la ci mën a figuré effectivement léegi nag Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck bon moi je peux le comprendre c'est on c'est on peut-être euh, koo xamante ne moo ak Ahmed ñoo bokk euh, kuréel ñu bokk lu ñuy combattre ñu bokk lu ñu tuddee un combat à la limite politique. alors ñu koy défendre kenn si kenn si am problème donc logiquement da koy soutenir loolu moom euh, c'est tout à fait compréhensible. alors monsieur Thioune pour terminer euh, liir nga tey président Macky Sall bi nga xam ni ñu ngi ko doon xaarandi mu nekk tête de liste euh, coalition euh, takku wàllu tey ci benn entretien mu amaloon ak RFI daal dinay xamal daal ni moom jamono ji dikkam Sénégal nekkul à l'ordre du jour benn impact la mën a def ci coalition bi ak ci élection bi ñu jëm. en principe Macky Sall mosul pare pour ñëw Sénégal donc euh, dañ koo àpp dañ koo waxal loo xamante ni moo waxu ko. Euh, président Macky Sall n'a jamais été voulu ou bien n'a jamais été prêt pour retourner au Sénégal loolu c'est la ça la vérité. maanaam dañ ko prêter ay intention de retourner au Sénégal parce que même bu ko ñëw Sénégal c'est dafay teel dafay nekk lu matinal lu précoce. parce que mënoo ñàkk nguur y a sept mois alors sept mois diggante li taxoon nga ñàkk nguur gi c'est toujours daf mu Mhm. léegi ñi nga xam ne ñoo la ñàkkloo nguur gi ñoom tamit ñu ngi fi sénégalais yooyu voté pour nga ñàkk nguur gi ñu ngi fi yow sénégalais yooyu nga àndoon ñu soutenir la pour xeex jàppale la nga bañ a ñàkk nguur gi mhm. ñooñu ñu ngi fi mais ab dafa ñooñu dañ la afaam ñu la bàyyi mhm. léegi ñooñu bàyyi la te cadre bi nga doon dem pour am li ñu tuddee euh, dem élection cadre boobu dafa tas donc le Benno Bokk Yaakaar n'existe plus léegi ñi nga amoon ci sa parti ñooñu aussi am nañu la ci bàyyi donc gis nga ni àla kuliyal sa électorat dafa wàcc. Mhm. parce que bien sûr cadre bi euh, benno bi existé wul donc am na ñu dem seen yoon. mais aussi APR am na ñu la bàyyi ñoom tamit dem nañ seen yoon. Mhm. léegi nag yow boo ñëwee bu fekkente ne da ngay ñëw boo ci raté maanaam du la Macky Sall même bu mhm. fekkente ne ñëwul physiquement. mais le fait que mu ñëwaat sur le terrain politique mais bu bu ñàkkee élection bi jàppal la c'est la mort actée de de l'APR pour ne pas dire ce sera le cas de du PDS et bu ñu ñàkkee nguur bi ñun ni ñu meloon. dañu mujjee nekk parti yóbbaale moom euh, PDS aussi gis nga ñu nekkaat parti yóbbaale moom mm-hmm. depuis depuis mille neuf cent quatre-vingt-treize ñu gëj a toog bokkuñ ci élection bi deux mille dix neuf mm-hmm. élection présidentielle ñëw mënuñ ci bokk parce que amuñu sax njiit boo xamante ne mun na fa toog pour porter les couleurs Macky Sall aussi s'il rate cette occasion des législatives mais def koy jafeelu lool pour mu mën a amaat euh, sens bi nga xamante ne wala doole ba mu amoon ci mbirum politique pour mu ñëwaat ci terrain politique sénégalais. Mm-hmm. maintenant moo tax léegi son retour c'était ni ñu ko annoncé c'était euh, lu teel pour un président qui quitte a même pas sept mois. Mm-hmm. nga war ñibbisi pour jàkkaarloo ak ñi nga xamante ñoom ñooy ses adversaires ñu la daan jàll de daan boo xamante ni ci histoire politique Sénégal musul am. Mm-hmm. un opposant n'a jamais gagné ci manière bi. au premier tour musul am. donc loolu c' est une lecture politique bi nga war a def donc il faudrait nga préparer wu maintenant physiquement boo ñëw aussi dafay métti parce que euh, campagne électorale boo ko bëggee def tu es obligé de faire le tour du Sénégal. Mm-hmm. tour du Sénégal gis nga euh, yow même bi nga nekkee sa biti réew foofu nit ñi dañu lay yuuxoo di la wax leen. yëpp gëm naa ne boo ñëwoon aussi bon chaque que tu es libre de faire battre campagne. Mm-hmm. mais aussi di nga pas forcer nga ñu tegal la euh, li ñu ci